Voilà, merci beaucoup. Je me présente d'abord. Salou Sar, coordinateur des jeunes de Néran et Diobaye. Chers parents, chers frères et sœurs, permettez-moi d'abord de vous remercier pour la mobilisation massive que vous avez effectuée. Aujourd'hui, nous nous sommes regroupés ici à Néran pour discuter des problèmes qui nous touchent, qui touchent notre population mais aussi pour dé dénoncer un fléau qui nous tient à cœur. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous interpellons le président de la République et tous les autorités administratives et politiques de la commune de Diouroup de rendre, de, de rendre nos bourgades Néran et Diobay plus vivables et plus de considération. D'abord, D'abord, nous d'abord réclamons de notre bourgade par le biais d'un chef de village. Donc, pour ce point-là, pour ce point-là, fait des années, depuis nos grands-pères, nos parents, nos grands, nos grands frères et nous-mêmes, nous avons pris la relève. On a, on déposé le dossier du chef du village au niveau de la mairie de Diouroup, mais jusqu'à présent, on ne peut pas avoir de satisfaction. Ça fait des années. La dernière déposition, c'était au mois de février 2021. Le dossier a été perdu au niveau de la mairie ou bien au niveau de la sous-préfecture de Tataguine. Donc, jusqu'à présent, on a fait des démarches, on a fait beaucoup de recherches pour savoir où se trouve le dossier, mais ça ne peut pas aboutir. Donc, nous lançons un appel au président de la République et à toutes les autorités pour que ce dossier, euh, pour que ce dossier soit plus vite traité. Notre école élémentaire est créée en 2000. Jusqu'à présent, elle ne dispose pas de mur de clôture ni bureau administratif et que tous ces étudiants que vous voyez ici présents sont passés par cette école. C'est inadmissible. Et, chaque élection, et, chaque, et à chaque élection, les politiciens viennent quémander le soutien de notre population, ce, qui nous, ce que nous déplorons. Parce qu'à chaque fois, à l'approche des élections, les, les, politiciens viennent partout nous, nous fatiguer pour qu'on puisse voter pour eux. Et à la fin, on court derrière eux, mais jusqu'à présent, on ne peut pas avoir de satisfaction concernant nos doléances. Donc, nous demandons à l'État et président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, et de la commune de Djouroup de venir en le plus rapidement possible. Nous avons notre bureau de vote depuis 2014 et à chaque élection, c'est APR qui gagne à 95%. C'est pourquoi, c'est pourquoi Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, pour renouveler notre confiance en vous, nous réclamons ces doléances en, en plus vite possible. maaleykum mbokku neeraan ak mbokku jooba yi ñu ngi gërëm suñu maama yi suñu papa suñu homme politique yi fa am xam ne ñoo fi teew di gërëm média bi nga xam ne ñu ngi ñuy gunge ci toute localité yi joobay ak neeraan ñun dañoo sonn ci li nga xamante ne mooy li nekk ci ñaari dëkk yi neeraan ak joobay mu ngi bëgg ci commune Diouroup département wu Fatick trois kilomètres de la commune de Fatick treize kilomètres ci commune Diouroup kon loolu xam ngeen ne laxuwul suñu ñaari amoo yi nag bu ñu amee ay infrastructures yu ñu saganee dañoo jog pour dëkk bi euh, dooleel suñu école yi suñu ndox bi nga xam ne motul mën luñu ko wax ne amuñu ndox électricité waxaale wuñu ko wala ay lamp ay lamp yi nga xam ne 1960 lañ fi nekk jusqu'à nos jours ñooy ñoom la ñuy utiliser ci dëkk bi école bi enseignant yi motul ndox bi motul o oh, de case de santé bi fi nekk mun naa wax ne maire buy moccu deret moo fi nekk am xam ne da lay moos pour mu wér boo amee trente degré ci sa tàngoor boo fa demee trente minutes da ngay faatu bu ci yàlla andul c'est pas normal c'est pas du tout normal te ñaari amoo yi li ñu gën a digmal mooy dañoo war a am chef de village ba nga xam ne dañ ko reconnaitre sur papier noir sur blanc deux bureau de vote bi fi ne dañ koy caxat-caxatee ñii di jële ay ay ay ay ay yoo xam ne dañoo war a voter yóbbu Fatick ñii yóbbu Ngalxayaay ñii yóbbu fu leen neex fii ba ba ba ñi war a voter fii da dootuñ fi sawar a voter dañoo jël suñu engagement ànd ak jeunes yi parce que ku ma xam ne passé naa jeune mais dama ànd ak jeunes yi doon neeraan a joobay diggante neeraan ak joobay nag neeraan moo jur joobay ñu nekk ci gim ko fu ñu teg seen tànk teg nañ foofu suñu tànk fu ko raw nun lancé appel ci suñu maire bi nga xam ne mooy Tamsir Faye le maire de Diouroup ak ki nga xam ne mooy euh, comment dirais Cheikh Kanté bi nga xam ne mooy département bi ñu gëstu Diourbel ak neeraan def fi lu leen war ñu def fi lu ñu war. li may wax nag mooy problème mu Nerane mooy que ne depuis l'antiquité ay ati ati ati at Nerane dafa soxla chef du village te mënu ko am dañoo def ay démarches ba saa ñu defee démarche ñu laq suñu dossier yi saa ñu defee démarche ñu laq suñu dossier yi sànni lañ dañoo wax a wax ba sonn dañoo dem a dem a dem ba sonn instant yi nag on est dañoo soxla moom suñu bopp indépendance lañ soxla administratif bële c'est grâce à la population dañoo def jéego bu rëy tabax fii bloc administratif mu ngi ne paregul toile bi moo des gis yale waa dëkk bi ñoo ko def seen propre moyen dañ koo ñàq ba pare def yi ko ay ay ay briques pour ñu am clôture. Macky bu mu nekkee fi ba léegi amul benn emploi bu jóge neeran dem bi si biti amul. léegi nag dañoo son si digg yi dañoo son si digg yi dañoo son si yi nañu gëstu ndaw ñi gëstu waa dëkk bi ñu taxaw dëkk bi nu mu ni mu gënee parce que fu mu toll nii dañoo sonn dañoo sonn te wax dëgg ca. ni mu mot fukki machine te bu fi ñëw yenn saay sax ñu ngi ñaa ñaaw njortu machine bu fi ñëw mu ne dootuñ ko samp fii ndax buñ ko samp fi dañ fiy daaj loo xam ne da koy yàq te di loolu de gasoil bi moo koy yàq baaxul courant amuñu ko chef di village amuñu ko joytu bi métti na moom nag moo ñu war a dimbale jàppale ñu ñun ay kii lañu baadoole lañu amuñu dara dem dem foofu laa jóge taw bi yëpp ci ko sama kaw la jeex démb yëpp taw bi démb yëpp ci ci man ci man la jeexee nañu dimbale nag ci loolu jàppale ñu ci loolu dimbale suñu doom yii. lan la gën a soxla tey tey ñun li ñu buñ a soxla mun nañu ko di yendu fii di ko wax ba ngoon jot courant amul machine yoon ak benn tataawu ma ñu suñu doom yii di jàng école ñu dimbale ñu ci suñu doom yi xale yi góor nañu tëdd ak ñoom di leen dàq di leen yàq te loolu baax xale tuuti lañu te ñoom la ñuy yaakaar gannaaw yàlla suñu doom yi la ñuy yaakaar suñu doom yi la ñu gëm nañu ci dimbale ndax bi metti na ndax bi metti na sonn nañu dañoo sonnoon ñu jàppale Fatick ak ak ak Neeraan yëpp benn la Macky Sall boo ko waxee ne Neeraan dina wax ne Neeraan laa dëkk foofu laa dëkk foofu laa juddoo xam nga ne lii amatul fenn élection bu ñu ñëwee kenn du oote seen kees yi bu ko indee fii jarul seen kees ñëw fii de pour Neeraan jarul benn kees ñëw fii xanaa li ñuy jooy buñ ko amee bu ñu amee